taxawu Sénégal ñoom seen candidature instant yi validé nañ ko moom ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade ñenn ci leaderu Yewwi Askan Wi bi ñu leen génnee ci li nga xamante ni moom mooy seen coalition boobu gis ñu ngi ci gis mu mel ni tulleeg maa la ndax ñii ñi ngi camp bi di waxal ñi nga xamante ni te ñoom ñoo bokkoon li nga xam moom benn groupe bi ku nekk di tuumal moroomam ci ay kàddu yoo xamante ay responsable di di doxalee lu mel noonu mu nekk lu ñaaw la nga ñëw mooy ki nga xamante ni ba mooy bi Dias ak euh, Khalifa Sall ñoom ñoo bokk taxaw Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, comme exemple Déthié Fall ak euh, Habib Sy ñoom ñoo nekk fële ca Yewwi Askan Wi parce que ñoom nee nañu ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall dafa trahir li nga xam ne moom la ñu waxtaanee woon parce que bi ñuy boole di def seen coalition dañoo dañoo tegoon ay charte yi nga xamante ni duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu ko teggi mooy lépp loo xamante ni dañ koy jël comme décision ñu ñoo koy jëlandoo une bonne fois pour toutes lépp loo xamante ni dañ ciy dugg ñun ñëpp ñoo ciy duggandoo ñu dem ba ci biir gis ñi nga xamante ñoom ñooy ñoom Khalifa Sall euh, dem fële ca ba ba doon jéem a defal li nga xam moom mooy seen candidature ci élection yi nga xamante moom la ñu dëgmal ñoom nag ñu génn ñaawlu ko ba ku nekk di tab moromam ci ay jikko yu ñaaw ay workat lañ ay ñii liñ leen foogoon yàq nañ li nga xamante ne moom lañu bëggoon lan nga ñuy wax si loolu. wax ci loolu mooy. nit daal du tam morom dëmm ci gisu ko muy lekk nit tam sa morom dëmm te gisoo ko mu tiim nit di ko lekk nit du ko def lii des Xalifa Sall dafa sonn dañ koo tëj il faut mu seetal boppam nag gaaw gars yi luñ bëgg abus est-ce que euh, mel na noonu Déthié Fall est-ce que mel noonu ñun mais meluñu noonu moom dañ ko tëj mu sonn dafa war a euh, olof dafa dafa wax ne kuy yoddu sëqat kuy yoddu sëqat boo sëqatee la ngay yodd day daw kon bul sëqat waaw moom mu ngi ci problème yàlla dimbali na ko woote nañ dialogue bi ñoom ñëpp dem nañ mm-hmm. wala boog am nañu dem waaye moom li ko itteel mooy boppam parce que nit itam duñ la duñ la tuumaal teg la lu diis nga war ko dind nga ne ci leneen. ah loolu loolu du dëgg. gannaaw daal validé nañ eh, mbiram. na góorgóorlu rek. waaw ah, validé nañ ko na góorgóorlu man daal loolu laa ci xam. Eh, Khalifa Sall daal na góorgóorlu rek. validé nañ ko na góorgóorlu man loolu laa ci xam. waaw loolu rek la am amul leneen. amul leneen amul leneen. parce que ñenn ci sénégalais yi maanaam dañ ko jàppee war ndax mi ngi mel ne tey man ak yow ñu dégg woon ci benn kàddu ne nañ defandoo lii tey ñu dem ba si biir nga gis leneen loo xamante ni bokk teg tey li moom li nga xam moom laa la waxoon xam nga yow bu boobaa bu fekkee amoo benn xel bu rafet bi rek di nga ne xam nga xam nga wor man boo gisee duma wax ci lu demee noonu su ma fekkoon waxtaan wa fekkee la ñu tëral su kenn roccee ma xam dafa war wala warul fekkewu ma waxtaan fekkewu ñoom la ñu tëral du duma du ma aju ci waxi kenn ne kii woor la wala kii woorul waaye daal xalifa daal na góorgóorlu waaw xalifa daal gannaaw moom walide nañ bosom na góorgóorlu daal laa mën a wax waaw jeex na na góorgóorlu rek waaw kon xalifa góorgóorlu yaa taxawu Dakar waaw mu mel ni dafa am question de ah. mhm. mu ne euh, ndax keroog waaw ci ci sortie bi nga xamante ne Bougane def na ko nee xalifa Khalifa Sall warul rek waaye Yewwi bi Wi mën nañ ñi génération yëpp la war ndax tamit coalition la woon boo xamante ni macha allah am na doole coalition la woon boo xamante ni xale yi dañ leen di topp wala boog mën naa ni ñenn ci Sénégal yi dañ leen di topp maanaam amoon na doole doole goo xamante ni ñoom li nga xamante ni def nañu ko am na lu bëri loo xamante ni wàññi na ko ci biir coalition bi. waaw xam nga man dama laa wax lu leer. Mm-hmm. la wor. dafa diis mënuma àtti nit ci wor te xawma lañu waxtaan su ma toogoon ca waxtaan wa xam lañu nas ku génn may la war nga ku génn rek may la war nga waaye tooguma ca waxtaan wa xaw ma lu ñu nas xaw ma lu lu lu war waaye daal xalifa daal nag naa wali dinañ ko na góorgóorlu